fekkee dañ koy laaf mu nekk mu daafile ci ñoom jar ko nekk nga ne taraddada malal imaam yi daal cee teg xayra abi bakrin xam ne abi ji mbooroon da nga seetee day nekk mu daafile ci xayra ji mu nasabe yaa ak azhanal ci daa jamihan xayra abi jahlin ak lam yafus ahadun xayru muhsinin wala xayra muhsinin da ngay jàpp ne lañ seetee moom dañ koy laaf jar ko ñoom seen jëm bopp nag da nga leen di ihraab mel ne li ngay ihraabe la topp illaa ci béréb bu mën doon moo tax ma jàng fee xayra abi bakrin ak xayra abi jahlin te fee nag moom ma jàng xayru muhsinin ak xayra muhsinin yaar yëpp lay man daañu gën a leeral ci téere bi ci topp wa jawwasoo daganal nañu nasban nasab wa jaran ak jar bi xalaa ci xalaa wa bi xadaa ak ci xadaa kazaaka naka noonu xaasha xaasha faaqilan na nga xellu yett yi moom xalaa xadaa xaasha ñoo bokk àtte dañuy seete waaye la leen topp di mustasna bu la neexee nasab ko bu la neexee jar ko faxiyee ñoom afaxaalun ay fexal lañu ida nasabta ndeem nasab nga bihaa ci ñoom wa axrufun te arafi jar lañu ida jarata ndeem jar nga ba tey bihaa ak ñoom la topp kenn ci yett yi boo ko nasabee ngay jàpp ne kon muy xalaa muy xadaa muy xasha daa nekk fiirul maadin na buxoo mi faañ la la topp kenn ci yett yi nag boo ko jaree da ngay jàpp ni kookee fa nekk muy xalaa muy xadaa muy xaaja te gam jar nga la ko topp kon moom arafu jar la rek jox la ci misaal nga xawle que li si wax ji nga ne yanta dara dogal na ngant arus lu yonante ya xalaa muhammadan ndare muhammad yanta dara fiirul maadin la arus lu mooy faaxilam boo jàngee xalaa muhammadan ngay jàng xalaa fiirul maadin la nëb xóo mi faaxilam muhammadan nekk ma foolum bii la neexee jàng nag xalaa muhammadin ndare muhammad mu daal nekk jaarun wa majdoorun xalaa nekk arafu jar muhammad nekk majdoor ak waxasira perte annaasu nit ña xadaa mujtahidan ndare aji farlu bitam mën a xadaa mujtahidan mën a xadaa mujtahidin nga xam ne boo ko defee xadaa mujtahidan nii xadaa fiilul maalin la nabuxoo mi faaxilam mujtahidan nekk ma foolum bii boo ko defee xadaa mujtahidin nag muy jaaru ma ji door xadaa mooy arafu jar yi mujtahidin nekk ma ji door ni awa jaa ani dikkal na ma al ixwaan mbokk ya xaasha xomara ndare xomar bi nas bi ca nasab ga aw bi jar wala ci jar ga kullun képp ci ñoom ñaar shahara siiw na jaa day nekk fiilul maadin nu nekk nuun lu xaayati yaa ji nekk mafoolun bii lu nasabi day damir al ixwaan mooy faax ni jaa lu mu rafaay daam ndax day jam xu taksiir soo jàngee xaasha xomara li neexee ne xaasha fiil maadin la nagu foo mi fa'ilam xomara nekk ma folun bihi la neexee jàng xaasha xomara jëpp rek jaaru ma di doon la waaye moom nag xomara day maalaay sarif moo tax bu dee majroor itam day xafale fata wala moo tax moom nga jàng xaasha muy fixal xomara di ma folun bihi ak nga jàng xaasha muy arafu jar xomara di majroor ñoo ci yemoo baabu laa lii mooy buntub laa dañ koy wax laa annaafiyatu lil jins laa boo xam ne day dàq aw xeet mooy day dàq dàq gu set wecc wane ne loola dara dara laalu ja boo ne laa sha'na lii bidaalik mooy sama yoon nekku ci loolu dara dara laalu ma ko ja boo ne laa silxata fi suuxi mooy benn xeetu marchandise nekkul ca marché ba boo nee laa kitaaba xalab taawilati mooy benn xeetu téere nekkul ci kaw taabal ji boo nee laa sayyaarata xinda maxatati sayyaaraat mooy benn xeetu oto nekkul ci ci oto yi taxaw du benn benn rek benn nekk fa noonu rek lay mel ak dàqam day set wecc wecc wecc wecc boo ne laa dirhama fii jay bi mooy benn xeet dërëm nekkul sa poos waa lam xamal bi ànd laa ci naka laa la daa dil maarifati fa borom xam nga tan si bu dana nasab nakkira tan nakkira duuna maarifati ci lu maarifa laa bii moom inna ñoo bokk lu ñuy jëf waaye nag daa am àttee bopp yoo xam ne moo tax ñu di ko ber lim ci njëkk xamle mooy moom dañuy sart li si moom ak xabaram nekk nakira kon sart bu njëkk bi mooy jàppal ne laa day jëf rek ci nakira waaye du jëf ci maarifa muy benn bi xëyri tanwiin ci lu tanwiin maanaam bu fekkee ne laafut niruwul laaf itam lismilaa ja doo ko maas yaari maas ko dégg nga léegi dama ne laa silxata fi suuqi néewuma laa silxatan dama ne laa kitaaba xalab taawilati néewuma laa kitaaban dama ne laa dirhama fii jay bi néewuma laa dirhaman kon li si moom bu fekkee laafut niruwul laaf doo ko maas yaari maas ko da nga koy dinaa ci fataa ci kaw rek muy lis mufrad mbaa jamfu taksir waaye bu dee leneen tam da nga koy binaa ci lam baaxoo nasabe niki bii tasniya nga binaa ko ci yaa bu dee jamfu musakkar nga binaa ko ci yaa isa ma qad basharat ndem jonjonte naag an nakkire te nakkire ba walam takun te nekkut mu karrare te ndi lu ñu baama bokk na ci sart yi faaw dañuy sart li si moom sus ci moom rek gannaaw bu doonee nakkire ne sus ci moom waaye bu fekkee susul ci moom jëf ji yàqu daañu ko leeral léegi lim ne nag moom walam takun mu kararatam te ñu bañ koo baamu muy ñaari laa mbaa ñett dañu wane rek ne suñ ko xasee baamu jëfloo ga du warati mën naa ñàkk ngi sax baamu ga moom du ci yàq dara ci jëfloo ga waaye nag buñ ko xasee baamu moom jëfloo ga du warati daañu ko wax léegi taqul li nga wax ci misaal ma ne laa xasada te benn xeetu kañaan fii fu aadi di nekk ci sama xol li ànd nii ngir naka man an saxu danaa laabiire lil xibaar yi ñeel mboolem jaami yàlla yi nee na man benn xeetu kañaan amul ci sama xol jaami yàlla yëpp laa yéene laa yéene sa bopp ngay wax laa yi laa yi naafiyatul jinsi la day dàq aw xeet te jëf-jëfi inna te innaa ki bokkam dañuy nasab li sim rafaa xabar daal ne xasada mooy li similaa li similaa luy atteem nga ne nasab lu mu nasabe nga ne binaa nañu ko ci fataa gii gis nga néewoo laa xasadan laa xasada nga wax fii fu aadi nekk jaaru ma juróom te lamboo xabar yi laaji du ci ajjar nga ne fii du ci ma juróom fu aadi du jeexe nga ne tey mu daa fiyaa kooku moo matale sarte gis nga xasada ji nakkire la te sës na ci moom dara taqaliwu ko te it daamuñ laaji fa in takun dem dana nekk zaatan fisaalin di boroomu facc fa wajaba kon war na araf rafaaga maa takraari laa ànd ak baamu laa indal arabi fa arab ya su fekkee li si moom nakkire la waaye dafa am leen tàggale moom laaji sësu ci rëkk kon jëf ji day yàqu te faaw ñu baamu laaja laaja du ñu rek benn yoon bàyyi ñu misaal ko tàqoolu da nga wax ci misaal ma ne laa fi himmati ngir mi nekk sama yitte masxun kaf wala du abatun du caageenu mbóorante mu ànd ni diir bi naka man adox yi danaa sàkku alxulaa kawe nee na man damay wut lu baax kon waruma am jotu kaf mbaa mbóorante ngay wax laaj laay dàq la kese yam ci masxun jee moo war a nekk li si moom waaye xamuñ susu ci fii himmati moo fi dox daal na yàq jëf ji day wax fii himmati jaarul ma juróom la tey làmboo xabari mu turam ñeexe daal di xafali kasara tey mu laaf yaay ji masxun nekk mu turam ñeexe rafaay dàmm nga ne wa duwaa batun aatin mootofun la ci masxun ji topp ko ci rafaa rafaay dàmm laaji nag laay dàq rek la gis nga masxun ji ñàkk sës ci laaji moo tax jëf ji amut te gis nga baamu nañ laaji dal ne wala du xaabatun lu mel ne nag fii fu aadi ak fii himmati nga xam ne dañ cee jokk yaa ul mutakallim ba noppi tam mu am arafu jar la gën a nopp la rek mooy nga ne lu mu xafade nga ne kasra gii waaye ñoom dañuy wax ne da ngay wax rek kasra guñ nattale ci li njëkk yaayu mutakallim ba tey ndax ndegam yaa ji moom faw bu jokkoo rek la ko jiitu faw day kasara mel ne ne kon kasara gi fi nekk jokk yaa jee ko ci indi kon nag da ngay wax rek kasra guy nattale ci njëkk yaayu mutakalim ji ni nga ko daa waxee ci beneen béréb boo xam ne du béréb bu jar waaye nag loolu moom jafeel naxwu la mënoon nañu rek ndegam kasra fi war a nekk far tombeeg atte ba di xafad ñu far doyloo kasra gi rek ne kasra gii waaye nee nañu faaw rek nga natale geneen wa in takarrarat ndem baamu na maxal mubaasharati ànd ak jonjoon tega fa fiihi kon nekk na ci moom wajhaani ñaari anam ruum na nga sàkku al mudaakarata fàttali kon tega bu fekkee ne laaja dafa ñëw ñaari yoon waaye nag kenn ku ci nekk li si moom sës na ci moom kon neena mën na ñaari anam ay limu ci namu jawwazu daganal nañu xiina isin ci waxtu woowee iamaalan jëfloo laxaa ñeel laaja kama xadd jawwasoo naka ñu daganale ihmaalan ak neenal nee na bu la neexee nga jëfloo leen bu la neexee nga bañ leen a jëfloo loolu mooy ñaari anam yi niki laa xawla wala quwata laa dafa ñëw ñaari yoon te kenn ku ne li si moom sus ci moom buñ leen bokkee jëfloo mooy lu mel ne laa xawla wala quwata day nattale laa xawla lanaa wala quwata lanaa nga xam ne laa bu ci nekk dafa jëf naa ko misaal léegi ba tey soo jàngoon nag laa xawlun wala quwatun su boobaa kon da nga leen a neenal bañ leen a jëfloo yaar yëpp na dagan na tàqoolu da nga wax ci misaal ma ne laa xaw fa déet benn xeet ragal xale naa di nekk ci ñun fii xadin ci ëllëg wala xadaaba déet benn xeetu mbugal naxwa naa muy nekk ci sunu wàll fi naka di ca tiis wa ngay wax laaji laayi naafiyatul jins la day dàq aw xeet tey jëf-jëf inna te innaa ki bokkam dañuy nasab la sima fa xabar xaw fa mooy li similaa li similaa luy atem nasab dum nasab nga ne binaa nañu ko ci fataa gii xale naa mooy nekk jaaru ma joroon tey laa moo xabari laaji boo agsee fee itam wala xadaaba ni ma waxe laa xaw fa nga koy waxe tekkee ne naxwa darfu makaan la tey làmboo xabari laaji darfu makaan loo ko xamee nga ne mooy luy tegtale barab waateem na sab lum na sabi fata gii lu tax day di si mufrat tey mudaaf naa nga xam ne kon laaji baamu na waaye dañ leen a jëfloo ñoom ñaar ñëpp loolu mooy genn anam gi aw xulta wala nga wax ne laa radilatun déet ak caay-caay fii xal bi muy nekk ci sama xol wala xabaawatun du caageenu réer xamitu sant naa rabbi sama borom dañoo jàng laara di lësun wala xabaawatun xam ne kon yaari laay kenn jëfu ci dañ leen a neenal kon am na ñuy wax laaji laay dàq la day jëf-jëfi lay sa su ko defee radilatu nekk li si moom ni ki lay sa fii xal bi nekk jaar mu jurul làmboo xabaram am itam am ñoo xam ba tey wala xabaawatun ñooye moo nga xam ne laaba day jëf-jëfi lay sa xabaawatun nekk li si moom ñu aso xabaram waaye nag li gën a neex a iraab daal mooy nga ne laa radilatun laaji laay dàq dong la radilatun mubtada la lu mu rafaay daam mu tax li si muxrat fii xal bi nekk jaar mu jurut laa boo xabari radilatun ji tey mu daaf yaa ji nga jekki-jekki ni waxa baabatun aatifun mawtuufun la ci radilatun topp ko ci rafaa ne laaji nag laay dàq rek la kon gis nga ko noonu laaji suñ ko baamoo mu ñëw ñëwaat te kenn ku nekk li si ma sus ci moom bu la neexee jëfaloo leen ñoom ñaar ñëpp bu la neexee bañ caa jëfaloo kenn daañu leeral ci téere bi ci topp nag ne la bu la neexee jëfaloo kee bàyyi kee ci ay anam anam yoo xam ne daañu ko leeral bu soobee yàlla baabul munaadaa lii muy buntu lañu woo innal munaadaa naka lañu woo xamsatul anwaax juróomi xeet la xindam ni daawoo dafa ibnu daawuda ak tawilil baax yi kay aj gudd ak jéego baat bi ñu woo ci làmmiñu arab mën nga koo xaajale juróomi xaaj yu bokkut door wax àttee al mufradu mufrad al xalamu bani xalam xul waxal ne wan nakkiratu ak nakkire ba maqsoodatan mbir mu luñ jublu wal xaksu ak safaan ba xindal xiyarati fa tànneef ya raabi huwa aj ñeenteel seen al mudaafu mooy lañ laafal wal xaamisu aj juróomeel ja maa mooy la nga xam ne shubbiha nuraleef na ko bil mudaafi ci lu laaf indil xulamaay fooy xam ña juróomi xeet yi ba ci njëkk mooy al mufradul xalam mufrad xalam muy benn ak nakkire buñ jublu nakkire buñ jublu mooy baat ba nakkire la waaye da nga caa jublu ku ràññi ko dikk nga ne yaara jul yow waa jublu ci jëmm ji fekk la jublu mu waaye rek la nakkire la waaye da nga jublu ku ràññi ko wala nga ne yaa muriidu yow taalibe bi jublu ci taalibe bi wala yaa sadiqu yow xarit bi jublu ci xarit bu ràññi ko yu mel noonu mooy nakkire buñ jublu safaan ba nag mooy nakkire boo xam ne jubluwuñ ca kenn kenn ku taxaw rek yaa moom soxlawuñ ca ràññeel daañu ko leeral léegi ca misaal ma way woo kon ñett a ngi ci mu farat xalam ak nakkire buñ jublu ak nakkire buñ jubluwut muy ñett ñeenteel bi mooy baat bi nga woo dafa laaf beneen baat ki boo ne yaa rasulallahi wala yaa abdallahi mel noonu baat bi nga woo muy rasul dafa laaf beneen baat ci kanamam kooku yomb a xàmmee la muy ñeent juróomeel bi nag mooy mu nurul laaf nurul laaf nag mooy da nga caa sësale loo xam ne moom mott li maxnaama su ñëwutoon rek maxnaama du mat de moom sax la nga ci sësale nekkul mu daafile dëgg-dëgg waaye nag moom mott li maxnaama bu ñëwutoon maxnaama manqué boo nee mu furat xalam nakira buñ jublu nakira buñ jubluwut nga ciy teg munaadaa mu laaf ak munaadaa mu nurul laaf fab ni na nga binaa al awwalayni yaari jëkk ya xala dammi ci damm bilaa tanwiinin jublu tanwiin wasma anta nga dégg tabiyin yi sama biral yaari njëkk yi moom ñoo bokk aate mooy mu furat xalam ak nakira buñ jublu ku ràññi ko ku ci nekk da ngay seet lam war a rafaaye nga binaa ko ci loola dàmm gi mu wax mooy bu fekkee loola daa nekk li ci mufrat mbaa jamu taksir mbaa jamu maanas yooyu ngay binaa ci dàmm ndax daa fekkan ñoom ñu rafaay dàmm ki boo ne yaa ahmadu wala yaa muhammadu kooku mufrat xalam la nga binaa ko ci dàmm ndax daa fekk mi li ci mufrat ba tey boo ne yaa zuyoodu yéen sayid yu bari yi nga jamxu saydin xam nga sayd xalam la boo ko jamxu taksir yaa suyoodu ngay wax dinaa ko ci dàmm ndax jamxu taksir dàmm di rafaaye ba tey boone woon yaa mari yamaatu wala yaa zaynabaatu kooku day jamxu maanas waaye da cee boole di mufrat xalam kon nanga koy binaa ci dàmm ndax jamxu maanas naka jëkk dadaa rafaaye dàmm waaye boo doon woo tasniya danga koy binaa ci alif ndax loolay rafaaye dik nga ne yaa ahmadaani yéen ñaari amet yi wala yaa muhammadaani kon noonu lay mel bu doon jam mu zakar nga binaa ko ci waaw ndax loolu rafaayu ni ki yaa muhammadoona waaw yooyu mu wax yëpp dañoo nekk mufrad xalam bu doon nakire buñ jublu mi ngi mel ni nga ne yaa muridaani yéen ñaari taalibe yi jublu ci ñaari taalibe yu ràññi ko su boobaa day nakire buñ jublu nga binaa ko ci alif wala yaa muridoona nga wax ko jublu ci ay taalibe yu ràññee ko nit ñett ñu toog di ay taalibe nga ràññee leen ba tey kon am ko binaa ci dàmm kon daal mu farat xalam nakira buñ jublu moom ku ci nekk da ngay seet la war a rafaay rek nga binaa ko ca loola nga xawli ko ni soo ja nga ne yaa rasuulu yow yonent bi ku nekkal shafihan di aji ramu fii naa ci nun wa yaa mutiixu yow ji di aji topp laatu sar bul dañ tati naa dinu dikkal yaa rasuul nga wax yaay ji arafu woote la rasulu munaadan mufradun xalamun la munaadan mufradun xalamun lu di baateem nga ne dañ koy binaa ci lam war a rafaaye kii lu war a rafaaye nga ne dàmm lu tax nga ne day di si mufrad soo agsee ci yaa mutiixu nga ne yaa mutiixu yaay ji xarfu ni daayin la mutiixu munaadaam nakkire buñ jublu la xam nga mutiixun aji topp doo nga lay firi nakkire la waaye boo ko waxee jublu ci jëmm ji daañu ko nag kon mu daal nekk nakkire buñ jublu su boobaa da ngay wax mutiixu mën naa daam nakire buñ jublu la mën naa daam nakire buñ jublu atee nga ne dañ koy binaa ci lam war a rafaaye kii lu war a rafaaye nga ne daam lu tax ñu day li si mufrat nga seetlu ne rasulu dañu ko ixraabe mën naa dan mufradun xalamun ndax jàpp ne moom la ko jubloo misaale waaye daa xaw a mel ne nakire buñu jublu la gën a niru bu ñu waxee mufrad nag ci bunt bi jubluwuñ ci luy tegtale lenn su fekkee ne rek baat ba laafut niruwut lu laaf rek dañuy jàpp ne mufrad la amma talaasat daal yett ya allati ya nga xam ne xad baqiyat des nañu fa innaha naka ñoom man soo bat lu ñu nasab lañ xay su waxat fi mën di dikk yett ci des nag mooy nakira boo xam ne jubluwoo ci kenn ku ràññiku ak mën naa daamu laaf mu nuróolu laaf yat yooyu moom seen atte mooy nasab ka xawli jil xamaa ni ki waxi boroom ngumba ga ëllësi ka nga xam ne lam yaxtadi gindikuwut li maslakin jëm ci aw yoon ne yaa rajulan yow waaye xub jàppal bi yeddi ci sama loxo day misaal nakkire bi nga xam ne jubluwuñ ci kenn ku ràññi ko mu misaale ko gumba gi nga xam ne daa bëgg ko teg ci yoon wa mu ne ay waaye ju may teg ci yoon wi xam nga kooku xaajalewu ca sàmbaag dembaag góoraag moo doo kenn moom li mu soxla rek mooy ku ko teg ci yoon wi kooku mooy nakkir bu jublut kenn ku ràññee ko kooku attee mooy nasab ngay wax yaay xarfu nidaayin la rajulan mu naa daam nakkira buñ jubluwut la mu naa daam nakkira buñ jubluwut li atteem ngay nasab lu mu nasab nga ne fataa jul tax day li si mufrat mudaafuha lu ñu laafal seen ka xawli jin tibaahin mi ngi mel ni waxi boroomu yeewute ne bi ko ci yow dong istajartu laay sàkkoo làqu yaa rasulallahi yow yonante yàlla de mu naa daam yi laaf ma moo yomba xàmmee lool mooy baat bi nga woo daal laafaat beneen rek ki boo ne yaa rasulallahi wax yaay ji xarfu ni daayin la rasula mu naa daamu laaf la luy aateem nasab lum nasabi fata lu tax dellu si mufrat tey mu daaf allahi nekk mu daaf ilayhi ma qabla wax amal mushabbahu ndaa lañ nuróole bi ci lu laaf fa naxu xawlika moo di lu nuróo sa wax ja nga ne yaa muttalihan yow aj yër xuyoo ba xayrika sikki kullu yow mi sikki jàmbur ixcheen ragalal yàlla yow mi yër sikki jàmbur ragalal yàlla te xool sa sikk xam nga kooku muttalihan ji mooy baat bi nga woo laaful baat bi ko topp nga jàkkaarloog moom ci xoolu bët waaye li nga ci sësalee moo mot li max naa mi su ñëwutoon rek max naa mi manqué ba yemoon ci yaa muttalihan rek kenn du xam li nga wax te dangaa bëgg wax yow mi yër sikki jàmbur ragal yàlla te yem ci sa sikk kon xuyoo ba xëy dikk ci jokk ci muttalihan moo mot li max naa mi su ñëwutoon rek max naa mi manqué loolu nag mooy lu nurul laaf wax yaay ji xarfu ni daayin la muttalihan mën naa daala mu nirulu laaf mën naa daa mu nirulu laaf luy aate ngay nasab lu mu nasab nga ne fataa gi xuyoo ba ma foolu bi la ci muttalihan lu mu nasabi fataa tax day jam taksir te mu daaf xayri xayri laaf ka lu mel ne muttalihan di fi di aj yër ku mel ne kooku day jëf ni final di jëfe moo tax dañ jàng ci téere bi ci topp baa di nga xam duñu ay final ba noppi te du tee ñu jëf ni final di jëfe muttalihan boobu da cee bokk baabul mafhooli lii mooy buntub kañ jëf-jëf min aj lii ngir moom waxoo moom assuma mooy lisim ba ëllësi ba nga xam ne yëj yi dana dikk bayaanan ngir leeral li sababil fii li ñee sababu jëf ja bi nas bin ànd ak nasab baana goog feeñ na mafool min aj lii moom nee na yow mën a xàmmee day nekk lisim boo xam ne dañ koy indi ngir leeral ne xew-xew bee am daal lee ko tax xew bu ñu tuddee xew-xew te bëgg leeral la ko tax xew su boobaa la ñuy indi mafhool min ajlihi naxu xawli kan ru sa wax ja boo ne woon xadamtu liggéeyal naa al Mustafa ka ñu tànn tab ji leen ngir màggal fa xaalte mu wax li ñeel ma ridan ngir gërëm moo tax mu wax ma ne ma te soodu da nga sang al ji la maas ga dama liggéeyal yonante bi te màggal ko rek kat moo tax ma liggéeyal ko mu wax ma ngir gërëm ma ne ma da nga sang sang maas xadamtul Moustapha mooy xew-xew bi liggéeyal naa ka ñu tànn loolu wax la ju sotti ju mat ngir ñu leeral la ko waral nag moo tax mu indi tab jilan maa daw dong moo tax ma liggéeyal ko xam ne kon tab jilan ma foolu min ajlihi la loo koy xamee bi ma day jógalee ngir nangam luwaateem nasak lu nasa bi fataa te itam waxaale lii mu ne ma ridan ngir gërëm damaa gërëm ba ne ma te soo dul ji la ridan boobu ma foolu min ajlihi la lum nasabee nga ne fataab na te ci alif bi ñu asof fa nekkoon rida waaye bu raagee alif taariwul laaf da ngay dagg alif ba maas li ko njëkk yaari maas ko xew-xew bi ko jiit nag mooy xaala lii wax na ma muy leer la tax mu wax ko nag mooy gërëm koo tax mu ne ko da nga sang-sang maas ak soo ne wa inna ni naka man uti danaa topp rabbi sama boroom alkarim bay aji tedd xaw fa maqaamihi ngir ragal taxawaayam ba ëllëg te yow tii nii te may jox an naa yi ma xéewal ga booy jàng benn benn annaayima ma foolum ñaareel la ci wayu nag nanga koy maas annaayim mu dëppoog alkarim noonu la war a mel yow ne ne boo ne inna xarfu tawkid wa nasbin la mu bi nekk noonu wiqaaya yaa bi jokko moom mooy li simi na utiixu day fiilu mu daarixum na bu anaam yi faaxilam jumlay utiixu moo nekk barabu rafaari xabar inna su ko defee rabbi ma foolum bii la tey mu daaf yaay mutakalim ji alkarima nekk naa ci rabbi xaw fa na nekk mafuul min ajlihi moom moo tax ñu misaal lu mu nasabi fataa tax day li si mufrad tey mu daaf maqaami maqaami itam laa faatihi baabul mafuuli lii mooy buntub kañ jëf-jëf ma xaw ànd ak moom mafuulu ma xaw nag moo ci topp waxu moom istabaana bir na suman mbir mu muy lisim xawaa boobu làq na nas ban nasab jaa dikk na itam jaa ju dikk na li bayaani man ngir leeral ka nga xam ne xat fu la jëfeef na alfian lu jëf je maa xoo ànd ak moom ma foolu maa xoo ku yomb a xàmmee la dañ koy andi ngir leeral ne kii ba ñu jëf xew-xew bi dañoo ànd ak moom def ko moom nag foo ko fekk da ngay jiital jumla joo xam ne faaw mu am fixal mbaa ab baat dana ci nekk bu amee arafi fixal ak maanaam fixal faaw du ci mën a ñàkk kon boo indee jumla boo xam ne jumla fixal la mbaa bu dee jumla lisim itam am na baat boo xam ne làmboo na araf fixal ak maanaam fixal waaw su boobaa nag gannaaw ba ngay indi lisim bu ànd ak waaw gu ay maanaam maxa lisim boobee ànd ak waaw ay maanaam maxa nag ci gannaaw jumla boobu mooy nekk mafoolu maaxoo taqul la nga wax ci misaal ma ne jaa adikk na a cheikhu sëriñ ba wal asxaaba ànd ak àndaale ya xam nga jumle jaa cheikhu jumle fi'al la jaa fi'il maadin la a cheikhu mooy fa'ilam su ko defee nga ne wal asxaaba waaw gi daal maanaam maxa al asxaaba mafoolu maaxoo la loo koy xàmmee nga ne day topp waaw gu ay maanaam maxa li waateem na sëpp lum na sayu fataal tax day jam taksiir wastawat ak boo ne istawat yemoon na almiyaahu ndox ya wal axshaaba ànd ak bant ya ngay wax istawa fiil maadin la ñu binaa ko ci fataa binat la ci alif bu ñu asaf istawa dafa amoon alif att bi ci jokku mu nekkoon istawaat moo tax ñu dagg alif ga att bi dañ ko soppi ti ndax àll bi sës ci moom ngay wax att ji xalaamat ta alis la waaye dañ ko kasara ngir yaari su ko ñu daje almiyaahu nag mooy faaxili istawa daal dara faay daam ndax lim nekk jamu taksir wal axshaaba nga ne waaw gi daal maanaam maa al axshaaba nekk ma fulu maawoo loo ko xamee ne day topp waaw goy maanaam maa dibaateem na sëpp lu na suy fataal tax day jamu taksir bu nee nag ndox yi yemoon naag bant ba dañ daan def bu ñu séddaleem ndox te bëgg caa yemoo dañuy samp bant bi sot ndox ba mu yemoo moom nañ jox kenn teelu ko defaat joxaat keneen te la ñu tuddi naa ndox yi yemoon nañu ak bant yi ba tey nag nee nañu waa misra seen dexuk niil googee buñ dee seet ndox ma namu dolli ko nattukaay bañ koy natte ba tey dañ koy tuddee xashabatu baabu maxfoodatil asmaa yi lii muy buntub yi ñuy xafab ci lisim yi day bëgg dugg ci lisim yi nga xam bi ne lu ateem xafab rek nga ci teg ñoom nag bariwuñ ñett rek lañ mooy jumlatu ma mboolem li nga xam ne yux faddu def na ko xafad min asaamin ci ay lisim ata dikk nañu talaasata mbir mu ñu ñett min aqsaami ci xaaj lisim yi nga xam ne bu ñu nee luy àtteem nga ne xafad taxu leen a bari yett kese lañ waxee ñoom maxfoodun mooy lu ñu xafad bi xarfil jar ci arafu jar aw bil idaafati wala ci daafe bi xëy nukkurin ci lu weddi taalis waa aj ñetteel seen attaabi mooy aji topp lil maxfood ñeel lu ñu xafad ma ixtilaafin ànd wuute fii ci moom ku di jàppal xarit yi sama way yett yi daal nee na mooy lu ñu xafad ak arafu jar niki bismi ak lu ñu xafad ci daafe niki allahi ji topp ci bismi mbaa lu ñu xafad ji topp lu xafad niki arrahmaani rahim kon jàppal ne bismillahi rahmaani rahim am na yett yëpp bismi arafu jar woowu moo ko xafad allahi daafe gi ñu ko daafe moo ko bismi moo ko tax xafada arrahman arrahim nekk nekk naat ci allahi moo leen tax xafada léegi mu ne maa waxtilaafin fii nag ñu wute ci la topp lu xafad lan moo ko xafad dëgg-dëgg waaye boobu wut daan amul la njëriñ teewul nag la topp lu xafad ba tey wute ndax yent la naat ataf tawkit badal amal la si ndaal la nga xam ne yux fadu def na ko xafad bi xarfi jarin ci arafu jar fa huwa moom maa mooy la nga xam ne yan xafidu dana xafadu min kalimin ci ay baat bi min ci min waxan ak xan wa fi ak fii wa rubba ak rubba wa ila ak ila wal kaafi ak kaaf wal laami ak laam maxal bàyyi ànd ak baa wa xala ak xala kasaaniki ni xurufu xasamin arafi ngiñ waawun te mooy waaw wa taawun ak taa baawun ak baa nga yokk ci waaw rubba ak waaw rubba mus ak mus munsu munsu itam ataa dikk na daa wax ne lu ñu xafad ak arafu jar moom yow mën naa xam ndax da ngay jàpp arafu jar yi ñu wàññi la ko nga dégg boo gisee dañu dem ci baat rek nga xam ne kon arafi jar yi ñoo xa fadl baat boobee dana ko wàññil nag tàmbalee ci min ki boo ne minallahi ak xan mel ni xanillahi ak fii ni ki fillahi ak rubba ni ki rubba darfin fahimtu baraana ab lay sama ma dégg ko xam la xam lañ ci jubla wala rubba darfin xabistu mokkal naa ko ilaa mel ne ilallahi kaaf ak laam laa mooy lu mel ne lillahi baa mooy lu mel ne baa bi nekk ci bismi xalaa mooy lu mel ne xalaa bi nekk ci xalaa sayidi ak araf yi ñëwaate araf yi ñëwaate yett lañ waaw ni ki boo ne wallahi gi naa ci yàlla taa ak ni ki boo ne tallaa gi naa ci yàlla baa ak ni ki boo ne billaa gi naa ci yàlla nga xam ne baa moom mën naa waat mën naa bañ a waat waaye lu mu ci mën doon arafu jar la mu wàññiwaale nag waaw rubba rubba boobu nga gisoon léeg-léeg ñu dagg ko ci béréb fekk mu ànd nag waaw ñu bàyyi fa waaw ga te du tee baat ba fis foofa ñu jar ko mel ne rubba ji dafaa nekk